ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre seen bi di Likzo ngi lay ñaan bu fekkee gan nga ci seen bi aboneel nga ba sàll si cloche pour nga bañ a raté benn si vidéo ñuy dugal ñu déglu Adamo après bi mu defee vidéo boobu noonu ba pare après ñu déglu ko salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi maa ngi doog a yeewu léegi damay dem fubali su ma fubalee ba ñëw nag ci laay doog a defar classement équipe bi wax ak Alioune Seck li jot a xew démb dëgg la maa wane samay kooy gis naa message yëpp fan si maa ngi jéggalu di jéggalu Waly di jéggalu Waly Seck di jéggalu Waly Seck ak képp ku bokk Ramadan ak sama yaay ak sama fan si yi may bëggee bu ngeen gisee ma génnee sama koy mooy dan maa tuumaal loo xamante ni defuma ko te nee na leen man kàppoo bu ma kenn suturaal ko am samay vidéo yu leer génnee ko mais di ràññee ay kanam di nëbb ñu naan kàppoo la wala du kàppoo moo tax ma rocc samay koy dèjà man damaa wow yaa ngi dégg man ay yax kese laa yii ay bara awma ci dara quiz rawatina loolu mais booy tuumaal nit nga tegal ko fa lu leer ni ma justifié woo nag moo baaxul ñëpp loon man ma meree maa ngi jéggalu bu baax a baax di jéggalu Wally sekk bu baax mais xam nga rek ba tey man maa ngi nekk en l'aise di cool je suis happy maa génnee samay koy